mbokki Sénégal déglu leen ma bu baax ma wax leen ku baax kuy faj fajum cosaan ak a defar produit yu baax kooku la ñuy wax seex borom produit yu baax muy góor da nga amee néew kattan te mu jaaxal la loolu ba mënoo dara si néeg dawal nga seeti seex sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku demal nga seeti seex ngay góor sa awra ndaw ba mënoo si dara yokkum awra kenn sutu ko fii fii si Sénégal ngay jigéen bëgg say fes génn ak say ans demal nga seeti seex mi ngi produit yu boo xam ni bu la ko joxee boo ko say ans day génn say fes génn blanc wala rob bu sa forme nu fàng karaw guy ruus seex moo si aay nga amee hémorroïde wala ndoxum siti nga amee tànk yu miti di la sonal lool ngay góor ñu takk la xalaa boo seetee seex da koy dind si une minute yow mi nga xam ni da ngaa amee prostate bëñ buy metti seex da lay tàggaleeg moom jokkal ak moom si numéro téléphone yii muy 78 116 15 48 wala 78 475 06 06 wala 70 592 93 94 seex a ngi noonu képp ku si jokkoo ak moom moo xam nga bëgg ku la jaay produit bi wala nga bëgg faju fajum cosaan boo seetee seex mu tàggala laak lépp luy sa man may nandi te si koñ bi man lu ma amul rek lay ñooti pour mën a am si yenn gel yi waral may jaay sama ngor bi

doyal naa gaal seen fiis ne leen kaw laay gis même bu may jël ci gaal yi dee pour mën a dund bel bi dund bi daa metti waral may jël ay risque foog ma dugg kaw dellu si dose fi naa nitee amoo yoroo weex na de dama yaakaar waaye lu tax yow boo naanee doo doo yëg weexaay bi yow man yii tàmm naa ko hmm? yi ma dara yi mu naa see naan ah! trois ma dara ah! dafa tàng quoi hmm. am saloor noonu la baaxee hmm? noonu la baaxee si noonu muy def noonu mi ngi dugg ci biir yaram mi ngi dugg bob bi mi ngi tourné wala commencé gu mu yegu yegu ma dara de li nga yeg li nga yeg yow yaa ngi yeg man non mi ngi dégg naa affaire yi bu dem ba chronique sama bob ak sama yaram bi dee ay tanga na de wah bay day mel ni xal xal la ñu jël quoi xam nga xal safara. safara baaxee. kon hmm? yaa ngi yëg tàngaay bi rek yow. dafa tànga quoi. yow di nga mandi tey ba gën tere. Hmm. waay laaj doon li mu jeex sa waay doon li mu jeex li mu jeex wala gars yi di yéex si kaw bi maa ngi koy dóoru koy o lan moo taxaw ni fii kenn taxaw fi amul kenn ah naa bërigo bi ngay seen naa moo taxaw fi bërigo la ah yaakaaroon sa papa moo taxaw nii sax quoi di di xool quoi. waaw. waaw am ah, na yaa ngi commencé kii quoi. Hmm? dafa weex quoi. non dóoral. dafa dafa weex. wala ma dolli si ndox kon. déedéet. waaw kon naa loolu affaire seer la ah, waaw <laughs> kon loolu ay ndox yooyu affaire seer la non maa yooyu tamit nag ah. eh nante nga. nante nga waaw te wala nekk bisa di gani. non xam nga rek. ki da nga war a naan rek jug dem sa yoon. loolu laay def. waaye oh. lii dafa tànga quoi. mais nan la baaxee sa waay dafa bëgg mandi kay nga mandi. ñu ni ki taxaw fi nekkul nit. waaye di bëri ko la boo bëggee ma indil la kii ka la eh yow kan. fii kenn nekkul fii. wallaay kenn nekkul. saa wul ma eh. da neexul kenn. ma dolli la ma dolli. Hmm? déedéet hmm. déedéet ma hmm? si kër. ma doon dolli bi mi ngi wëndeelu de. kii dara wëndeelu. sa waay bâtiment baa ngi ne tekk tekkaaral kon da ngaa commencé wëndeelu nii. waaw doole li nga jóg dem kon nga dem egli sa mission kon ah rayal lii sa waay nag muy lox nii depuis yow nga ne danga passé voie de dra dra femme xaw ma voie de da pas passé les voies. da ngay kii quoi yu yu xeelu quoi. loolu léegi damay jékki-jékki rek sama yaram bi daw. xanaa ah, nekkatoo góor. xanaa hmm? ah, nekkatoo góor li ngay woote fii li ngay woote fii gars yi nga ne góor yàlla nga. góor laa waaye sama yaram bi day jékki-jékki rek. mais kon waroo esaan yi waroo xalaat bandi. non xalaat. dèjà ah, man ca du ma xalaat du ma xalaat. këlamu lii mu dem këlam koo. xanaa xanaa mu dem. amul dafa mel ni dañuy jékki sama yax bi yax bi du loos. que esaan ni ni ngay boo naan looy gën a wax rek muy gën a appliqué.

nga costé nii mel ni sàcc boobu. su ma tuddee ay sàcc waaw am nakar. ban nakar nga am lan la ku bi lan la sama booy demoon Espagne. waaw euh, jot naa ay nouvelles que ni seen seen bi euh, dafa réer quoi. affaire bi tuuse sama hmm. tuuse sama ah. booy booy booy dama leen bëgg quoi billaay. gaal ga ah, daa réer. buñ ca amee loolu sant dangaa dëgër bopp waxoon naa la dama ne la gaal yi pour nit mucc ci dëgg dëgg dëgg yombul wax naa la ko gaal moom bu réeree moom mooy c'est fini moom. gaal bi gaal bi réer na waaye waaye mun na teere France euh, wala Amérique wala États-Unis wala New York. duul waay parce que sëriñ moom la waaye su ma boti ñu teg waaw doon def am tëb kaas boobu la ma wax ko karal naa ñëpp wana non karal la rek après da ngay da ngay jàll karal la après da ngay jàll ma tànk yi yëgatu ma ko de non tànk sa ma la a nii nga naan ma naan kaas yoo xam ne ko doon naan de yëgatuma sama yaram de waaye nan de dugal nag dèjà dugal maa ngi ah karoy la après boo di karoy da nga war xaaral xaaral xaaral xaaral. yow kañ nga fi loxo ñëpp. taxawal kii yàlla. daa moo taxawal nii. kii bërigo bi la. ah bërigo bi la. bërigo la bërigo taxaw nii deux heures gàncax. non paa bi duñ fekk dina gàncax. bàyyi non bàyyi ma yow tam bàyyi ma dox waaye bu ma jàpp waaye ñu lan la nii bàyyi ma waaye. ah dama tóo jiw lan dem man maa la yokk la. ah kii xel la. kii bërigo bi la nga naan ma ah bërigo bi la. eh damay saaga sande ko xel la ah. kan mau taxaw ni. man France xanaa àllaaxira lay teeree ji nga ma France jaar googu de bu sooba ah duma lah duma yonanti de waaye liñ leen wax ngeen dëgër bopp topp ci géej gi mbaa yéen yéen jàmmaleen ci géej ah jàmm ne bëgg bëgg réussir rek bëgg réussir. loolu loolu waa réussir toog tedd dem tedd waaye toog tedd. gis nga la ngay bañ ca réew tubaab yee la ngay bañ fii di ko def fee boo ko defee fii tekk waaye da ngeen a complexe da ngeen a problème nag Dubaay de man man France yow baal may waxi Dubaay waaye Dubaay kenn bëggatu faa dem ndax lañ fay dégg waaye dama ne bitim réew fa tubaab ya ne la fay def boo ko defee fii tedd waaye da ngeen a da nga naan da nga fii nekk nekk xale bu góor di tiitaru gel yi di la jay nga ne doo jaay café waaw waaw waaw ah? xam nga bi nga ne doo jaay banaana man daal l'essentiel wax naa man maa yore numéro capitaine bi te keroog am na ku mu ci woo mu ne ma ok frère gis nga ok frère boobu dinaa la wax ok sister bye bye bonsoir ci kanam yaa wax lii projet bi ba léegi sa sa sa tomba sa tomba pas à l'eau ça reste nga nuyu ma waa Europe nuyul ma leen buñ ma laajee comme yow moom dangaa dof rek te mënoo wér farjo may ma dox dafa mel ni pax pax pax pax pax si yoon yi quoi. yu amul benn pax jéggi normal. kontaan xaaral. xaaral rek dafa am lu may xool. ma waay yow tam nag loo may loo ma jéem ni li lan ni bàyyi ma. sànq li nga noo wàccee fii rek laa bëgg su ma nekk lu mu mën a def baax na. soo. nag andi ah, ko nante nag gaan sa waay. kii hmm? kan la. njaawal ñu dem waaye sa waay nag. an moo taxaw ni. amul kenn taxaw fii fii kenn taxaw fii. xanaa da nga am ay rab wala. Hmm? da nga am ay rab. taxaw waaw yow la dañ dem amul danger dañ dem la nii ma ne nante maa.

ديدي ديدي ديدي ديدي ديدي ديدي مو تقني وايد انت كيف هلا؟ ايه ايه قلت لك في قلت كان عملنا قلت لك هو منين جس له جس له انا انا انا ها؟ كلا في كلا حمله ما هم كلا اوه لا اوه اوه اوه wannan hassagan dai ole ole kuriyalla nyole nyan yaraso jondamle eh eh masaga oh Men mig nandi desi koinbi Maluma amu regla nyodi Urmuna amsi yene geli Waran me jai sangon gorbi Nandi te koro yato Nandi te amo yoro Nandi te koro yato Nandi te amo yoro